ande man Oulimata Seck saa yu ma tuddee ci béréb saa yu ma tuddee ci bërëb ci ci maanaam mu jëm ci APR pour lu nit ñee jariñoo góor a yu def sottu a yor ay dambalam di yàq sama tur naan kooku bay bay yàq bay waaye góor gu ci yorati say dambal laa wax ci ci ci lépp lu bokk ci APR xam naa leen nag yi ñi koy def ñëpp xam naa leen ku ci am sa caaya ju forox sa dambal yu xur nga bama man li ma def ci appel yéen ñi ci jariñu fi mu nekk kenn defu ko ci man nag xam naa ñi nga xam ne borom dambal yu gudd yëpp nag yi nga xam ne ñi yor seen i dambal seen biir caaya fu ñu tuddee Walimata Seck ñu yàqal ma fa waaye ku ma ko ku ma ko ci defati danaa xuuf say dambal yow nga ngeen koo dégg nag ñoom ñëpp ñoom dambal yi borom dambal yu yoore yi nag laa wax ku ma ko ci defati ban wax ma ko lu ma nit def rek ca pale bee rek wala wax ma ko fa rek dugg na sama nopp wax nan ma ko ka ma ko def waaye képp ku taxawati ndakaaru gee ci béréb yi nga xam ne fa la président di defalee nit ñee nga fay yàq sama tur sa dambal yu gudd yooyu laay daggalaa la wax sexal la ko sa gémmiñ googu nga ma yàqalee bu soobee yàq